ñi nga xam ni ñoom ñoo jiite parti yi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar nekk fii ci communauté Tivaouane pël Niague toll ci fukki parti ak ñaar ak ay mouvement yu am doole amaloon nañu waxtaan fële ca Lac Rose li ko tax a jóg nag mooy wàccaayu élection locale yi ki nga xamante ni moom mooy seen coordinateur di ma Momar Sokhna jóg maire de la commune de Tivaouane Peulh yëkkati na fa ay kàddu du ñu def lu dul tax mois d'août 2021 bi nga xamante ne si woote nañ benn ndaje ndaje boo xam ne ndaje bu benn bokk yaakaar ndaje bi liñ ci jàngal mooy parti yi nga xamante ne si fekkee nañ ko muy APR muy AFP muy parti socialiste muy UCS muy yeesal bu Fada muy LD muy PSD Jant muy BCG muy Réew mi muy coalition Marquée 2012 eh, mouvement Mon Pays Mon Avenir PID, mouvement PAS ak eh, mouvement Muladies et ñëw nañ fi daje qui, hôtel Salim ci La Rose pour gën a dëgëral ànd bi nga xam ne mooy àndu benn bopp yaakaar damay tàmbalee ci njëlbeen pour xamal askan bi di ñu dajale fii

ay le yoo xamante ne si ci gox bi di leen ràññi muy président Bakar muy président Mamadou Ba muy président Ousmane Ngozi muy ñeneen euh, euh, euh, kilifa yi nga xam ne ñoom Khady Ba président président mouvement bi nag yéen Assane Diallo ñoom ñëpp ñu ngi fi mon pays mon avenir pour ànd waxtaan pour xol naka la ñu mënee rafetal sunu ànd ci jogante yi nga xam ne ñu ngi ñëw.

xar kanam yi nga xamante woon ne ñëpp waroon nañu tey fekkee ci waxtaan bi macha allah ñu ngi fi te liñ fi waxtaanee jàmm commune bi la jàmm Sénégal la jàmm la boo xamante ne si ci la lépp xel maa ngi ñaan suñu borom euh, yàlla bu seytaane dox suñu diggante maa ngi ñaan suñu borom képp ko fekkee que yàlla baal na say bàkkaar yàlla ubbalee ba see buntu wërsëg ah di gërëm nag di di di di di gërëm parce que yàgg nañ gërëm président euh, Sonko ne président Bas mouvement yi bàyyi ma ci kenn président kenn ku ci nekk man la jox sa wàccuwaay yàgg naa leen gërëm mais di gërëm tamit suñu ñaari euh, euh, Bassirou Faye ak euh, ak CDC bi ci taxawaay bi nga xam ne ànd nañ ko ci coalition benn bokk yaakaar parti yi bàyyi ko ci benn waaye tamit ci ngërëm yooyu tamit ci beneen loxo tamit président Mamadou Ba nga xam ne am na taxawaay bu rafet ci commune bi ci ñëw bi nga xamante ne si day gën Eh, leeral am na bi gën a am na bi ndax ci élection yi jogante yi mujjee woon dem yàlla def na 2014 eh, yàlla mayu na ko ci lu lu takku ndax xam naa su jumbul eh, ci coalition Benno Bokk Yaakaar moom moo jëloon deuxième position. kon wax dëgg neex yàlla dëgg baa ngi nii suñu yaay Xadi Ba wax na ko léegi nañu dëx ah, na af na waaw nañu dëx. dañu gudd euh, ñaar yooyu bu ñu ko réussir rek dafay gis suñu gàmm di ñaan jeunesse bi àddina jarul yàkkamti foog naa nekk tey peut-être ñun ñi fi def ñu bari ci responsable yi ñu ngi ñu ngi wuyu vers euh, vers yeneen yëf mais commune Tivaouane Peulh commune la boo xam ne potentiel bu rëy a rëy mi ngi fi bu ñu àndee nekk benn lépp dana gën a yomb. te li mu gis tey dalal na xel ngeen baal ci cadre yi lépp lu ci dëgg na man lépp lu ci jub na mooy woon yéene daje bi di leen ñaan ñaari yëf benn bu njëkk bi mooy nañu gën a taxaw ci euh, commission d' inscription yi ndax ñaari moo am benn bi mi ngi ci méritoire pël beneen bi mi ngi ci ñàkk euh, euh, donc bu ñàkk a ba léegi mise en place bi ça pose problème di wax tamit askan wi ñaan ndax jamono yee passé amoon na benn bureau d'inscription fii ci ñàkk mais ñaar la ñu amoon droit te ni situation bi nekk ak ñàkkuram bi ñëw il était plus judicieux ça dañ jàpp ne mu def ñàkkuram moo ko noonu teewul la commission yooyu dana am ay jour yoo xam ne dañu mën a ñëw tourner pour ñëw ci dëkk yi ñu mën a xam exactement ban jour la ñuy ñëw boobu bu jàllee euh, li ci des nag mooy euh, danañ programme beneen daje waaye balaa daje boobu am na waxtaan ci suuf yu war a am waxtaan bu nekk gën a dëgëral ànd bi gën a xam toogaay bi nu muy demee pour que bu keroogee bu ñu wootee beneen daje daje boobu tamit yàlla dañuy suturaal ba mu gën a neex ak daje bu nekk. waaw benn point la bu am solo ndax jamono yi passé da ngeen di faral di gis ci télévision ak ci rajo yi mu am ñuy beddeeku di wax ci turu benn bokk Sénégal benn bokk yaakaar wala mu am présidentiel benn bokk yaakaar nag.

au sein de l'hôtel Salim les partis qui composent le Benno Bokk ainsi que les mouvements qui soutiennent l'action du président de la République, le président Moïse, pour pour un Sénégal émergent aujourd'hui la présence de l'APR, de l'AFP, du PS, de l'UCS, de l'ISL de FADA, de la LD, du PSD du BCG, du Réumi, de la coalition Maquet 2012, du mouvement Mon Pays, Mon Avenir, du PIT, du mouvement BAS, et du richesses. Nous, ainsi que des mouvements la la Diallo. Nous, nous avons échangé sur le contexte politique et l'avenir de la coalition belgo Kyaka pour les prochaines élections locales. Il a été retenu et convenu qu'unanimement tous les partis politiques qui ont été cités ont décidé de continuer leur unité pour la victoire de la coalition Belko-Piakar au soir du 23 juin 2022. Au-delà des partis politiques, ici présents, nous avons noté la présence d'éminents leaders politiques de cette collectivité ainsi, nous pouvons citer entre autres la présence du président Mouzouba, du président Mahal, du président Mousso et à côté de ces partis politiques. Bien qu'ils soient déjà pris en compte au sein de la PR, mais nous devons les citer pour montrer l'union qu'il y a au sein de cette collectivité. Nous, nous allons, Inch'Allah, dans les prochains jours, décider d'une date ultérieure pour pouvoir organiser d'autres rencontres au niveau des partis pour pouvoir euh, euh, commencer à échanger plus que d'habitude sur euh, les stratégies politiques à mener. Mais ce qu'il faut obtenir aujourd'hui, c'est l'unité qu'il y a au sein de cette coalition. Nous espérons que cette unité sera renforcée et que particulièrement la période électorale où nous sommes en ce qui concerne les inscriptions sur les listes, les partis se sont engagés à ne ménager aucun effort pour pouvoir euh, sensibiliser les populations, en l'occurrence les jeunes, les plus beaux votants et les personnes qui ont changé de lieu de résidence pour pouvoir donc s'inscrire le plus rapidement sur les listes électorales. C'est un peu le message que j'avais à transmettre donc à la presse pour montrer au plan national qu'il y au niveau de la commune de Théoine-Cognac. Nous tenons aussi à préciser une chose, c'est que seule cette instance-là a le pouvoir de communiquer au nom du Bénébo Biakar. Et que toute personne qui euh, diffuserait des, informations ou des vidéos pour le compte du, du, du n'est pas habilitée à le faire. Je vous remercie.